bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yéen mbokk jullit yi yéen mbokk taalibe ñoo ngi leen di nuyu te leen siyaare te di leen yëgal bisub Daaru Saam nga xam ne ñu ngi koy def à cinq cent wi ñu tàmbalee ci bisub ajuma bi la liggéey bi tàmbali ba ca ba ca gaaw ba yéen déere yi ñu ngi leen soññi te xam ne fañ daan fañ daan versé moom la ñu versé boo ñëwee ca penku ca soow soow jumaa ji danga fa fekk Fallou Diabaye ak ab Abdou jaw ak kenn ci taalibe yi kenn ci sëti ñu nekk fa dara suppi ko fi lépp bépp dëyër bu fa ñëw rek boo nee da nga verse ñu bind la tontu nga yóbbaale ñoo ngi leen siyaar yi ñoo ngi leen soñ yéen waa dëyër yi yëpp yëpp bu ci kenn manque jërëjëf jëf saa bismillah rahmaan rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax day jégg lu baax nag ci kàddu yi jël ci suñu yi kilifa waaye liñ li ñu tax a jóg rek mooy soññee wàllu alxuraan mi ak njàngum xasida mi ci njiital sëriñ Basiiru Jóob moom sëñ Mut ma sàmba moo koy jiite bu ñu xëyee huit heures bu soobee yàlla danañ fexe ba ñun ñëpp ñu daje ca jàkk ja nekk ca alxuraan ja ba midi et demi daanaka ba tisbaar rek ñu noppee sëriñ bi xatmu ñaanal mbokk yi bu ko defee ñu ngi soññ mboolem daaray alxuraan yoo nga xamante ne aju na ci kër gi ca moo xam moo xam ab sën nga ci moo xam ab taalibe nga ci ñu ngi lay soññ nga tàmbali njàngoom alxuraan mi ñu daal di koy tàmbali man koo def bu ko defee itam xaside yi itam sëriñ naa Jóob mu sëriñ Suraay moom sëriñ Sulay Jóob moom moo koy jiite moom itam ca mbaar ma lay am 8 lay tàmbali moom itam ba digg ba ca incha allah ba keroog ñuy def cérémonie bi rek moom itam booba waxtu la koy def kon ñi ngi soññ booleem jàngkatub xasida moom itam waxtu woowu yi lañ am ngir loola jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare di leen fàttali siyaar bu mag bi nga xam ne moom la amal Daaru Saam ci le 5 janvier Euh, fas yéene nañ faa def ay waxtaan yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy tàmbali ci le 4 ci ajuma le 4 janvier lañ koy tàmbali ci guddi gi dafa fas yéene def ñaari waxtaan yu am solo bu njëkk bi sëñ Mbacke Abdourahman moo koy amal di waxtaan ci solo su xam-xam am ci njàngalem sëriñ bi al ilmu wa makaanatuhu fi taalimi Cheikh al mi ngi koy amal buñ sëlmalee timis ba gannaaw gannaaw gee ci la koy amal buñ noppee bu ñaareel bi euh, Gana Messere sëriñ Gana Messere moo koy amal di ko amal ci dund ma Massamba Diop liñ ci mën a ndaw ñi mën a jariñoo ci yar ba yar yar biñ ci wala ndaw yi mën a jariñoo ci léegi ak taalibe ak euh, nam nam jukki yu rafet yi nga xam ne moom la amee woon la ci ndaw yi mën a jàng te mën euh, buñ ci ajjuma ji ci gaawu bi daañu amal benn discours boo xam ne nii daan ci jàllale message bi xam ne moom la kër gi waa ko ma samba ak sët yëpp bëgg a jàllal mooy seen bu mag bi nga xam ne moom lañu amal mu jëmale ci wàllu xam-xam ak yëngatu sëriñ bi nga xam ne moom la yëngatu ak ñu defar ci boo xam ne amal nañ ko foofu ci Daaru Salaam daan ci waxtaane jàllale ko ci leeral ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu ñu leen di nuyu mbokk yi di leen nuyu ci di leen baal xam te di leen baal xam di leen yëgale ak bisu sang bu tedd bii ñuy defal Serigne ma Diop ci ndigal ak Serigne Mountakha kilifteefu sëñ bi nag wax ni mi ngi ci soññ bokki taalibe bi yëpp di ci soññ itam mboolem njabootu Serigne Touba yëpp di ci soññ itam mboolem seex yi nga xamante sëriñ Serigne Massamba Diop ñoo nekk nag moom ci kër Serigne Touba. kenn ku ci ne daal kenn ku ci ne daal sëñ bi nee na ñu ngi la ci woo di la ci soññ bu baax a baax ginnaaw loolu itam yàlla dogal na ñun waa daayira bi itam am nañ ndigal ci sëriñ bi am yéene def fa daara ju mag joo xamante ni si mbooleem xeeti xam-xam yëpp des ko fay jàngale loolu itam yàlla dogal nañu ñu ngi liggéey plan bi mi ci architecte bi bu noppee fas nañ yéene bu fekkee pare na ci diggante bi dees na jéem a teg xeer wi ca bés ba incha allah loolu itam ñu ngi koy yëgal bokki taalibe bi yëpp di ko yëgal bokki jullit yëpp di ñaane itam nu àgg ci ci jàmm ci daj ci ngërëmal mag ña kon nag yàlla na suñu borom defal dégg ak topp ci barkab Serigne Touba barke Cheikh Souhaïbou Mbacké di sant itam sëñ Jili Bousso mii nga xay ne moom lañ ko doon defee fii ci këram di sant Serigne Moudou Massamba Diop liggéey bi itam yitteel ko lool moo ànd ak rakkam Serigne Mor Bousso kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci recevoir gi nga xam ne recevoir ko bokk yi ngir gën a mën a yaatal liggéey bi Serigne Massamba Diop bi kon nag ñu ñaan yàlla defal ñu ci tawfeex ak taysiir nu àgg ci ci jàmm ci barkeb Serigne Touba kon nag mu jox la ma joxaat la Serigne Cheikhouna mu yore wàllu administration mu am tuuti lu mu ci leeral ndax ak koo fàttali bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala ñu ngi leen di nuyu Euh, tey li ñu delluwaat ci wax ji rek mooy télévision yi waa presse bi ñëpp rek ñu ngi leen invité waaye dañuy bëgg képp ñëw it na nga jaar fa ñoo xam ñoom lañ dénk loola ndax bëgg ñoo kenn bëgguñu koo xam dana ñëw di télé di di di film loo xam si ni di ko yóbbu foo xam ne bokkut ak am na kuréel yu ñu samp boo fa ñëwee boo bëggee filmoo da nga waxtaan ak ñu xool condition yi ngay filmoo na doxale ñu ngi mën doon daal ci bu dee ci télévision yi moom nag ki nga xam dafa yor ay ay ay appareil ak yooyu kooku mu sëñ ko waaye nag télévision yi daal képp ku fay ñëw wala wala presse bi daal am na kuréel goo xam ne si ñu ngi boo di boole ak moom bu ngeen ñëwee bu ngeen laajtee day nañ jox kuréel googu incha allah dégg